paasan dañuy dugg nag ci actualité balaa ñu ñëw ci dialogue bi fi jotoon am ah, ci altine ji ak talaata ji daañu wax ah, ci OFNAC mi mhm. nga xamante ne ni président léegi dafa renforcer seen pouvoir jële mandat bi trois ans yóbbu ko cinq ans ak limu sañ-sañ yi mu leen jox loolu ba nga ko déggee yow apréciation nga ci def mandat bi daf ko jële euh, trois ans yóbbu ko cinq ans non ba ban mandaa la jëli trois ans. bu of bu président. bu bu of nag bi waaw non non si si si xam nga si si ma yaa ngi wax mandat may xalaat ko mandat présidentiel. moo tiital ñëpp non il faut juste comprendre une chose. ñun dañu sekk ak ak nguur ba xam ni. Mm-hmm. ñun sax ñoo fi toog am respect ci ñoom ñoom respecté wuñu ah régime là ñoom lu nu bëgg a def la ñuy def. maanaam est-ce que lii rafet na est-ce que sénégalais dinañ kontaan est-ce que bëgg nañu est-ce que d'accord nañu non non non c'est pas leur souci ñoom li nu bëgg a def parce que le président Macky Sall noonu laa fonctionné bu ma delloo ginnaaw euh, élection municipale de 2002 yi nga xam ne moom lañ tuddee élection territoriale élection locale maire yi mais le président Sall en 2002 dafa voté sans carte d'identité forcé mm-hmm. parce que il était ministre de l'hydraulique au temps avant muy nekk énergie mine industrie yore yore ensuite euh, mise de l'intérieur mhm. nekk ministre de l'intérieur avant mu nekk président assemblée mais mhm. le président Macky Sall ñi ko xam dañ naan saa yi kii li mu bëgg a def lay def day forcer alors forcer nag baaxul mais képp ku kaa def tey ci ay mbiram dafa gën président Macky Sall dafa falu ci benn contexte contexte boo xam ne ñaar ñoo fi nekkoon muy Moustapha Niass Sanu Baay bi ak Ousmane Tanor yàlla na ko yàlla yërëm ñoom ñaar seenu xëccoo en 2012 moo jur lii tey ñoom ñaar bu ci kenn toppoon morom bi rek. Mm. tey du ñu wax président Macky Sall dañ naan soit Moustapha Niass wala Ousmane Tanor Dieng mais loolu ñu ngi ñu ngi nekk di ko dundaat nii maar day um si nun kaa dundaatee moo di ne opposition bii xuloo seen biir wala ñàkk déggoo wóolontewuñu mm-hmm. moom muy def li moo def yaa ngi may wax waxi off nag le président Macky Sall prend des décisions yoo xam ni lu ci bëri danga naan mais dafa jël décisions yi pour le peuple wala pour moom finalement boo xoolee ba si biir c'est pour lui la ko arrangé rek of nag yow yaa ngay dem. Hmm. jeexal nga. Hmm. <laughs> looy wut a soppi mais arrangement si lan. non arrangement dans le sens où euh, il va falloir peut-être corser quand il faut parce que le procureur la République ci jamono Bassirou Guèye la woon. waaw nekkatu ko. Mhm. léegi nekk na jiite nag mhm. la mu jiite ca OFNAC peut-être loo xam ne OFNAC abu ko woon mooy ay prérogatives yu kaa permettre mu jàppalu tëjlu hmm. euh, sànq sanctionner léegi nag est-ce que duñ ci jublu sanctionner qui on veut dans ce sens par rapport ak qui c'est hmm, hmm, mais l'un dans l'autre président Macky Sall moo waratul jël fi benn décision lu dul waajal dem looluy dëgg malheureusement il déroule il déroule face à un peuple qui accepte tout tendre du docile face à des opposants qui parfois manquent de génie et de stratégie moi l'opposition sénégalaise je la trouve pâle et pâlie mm. je la trouve amorphe aphone presque sans courage euh, sans sans capacité wu ne non li lii du am président Macky Sall 2011 da doon fëkk ci table bi pour que Ousmane Ngom bañ a organiser élection yi hmm. da doon fëkk ci table bi pour que ñu bañ a reporter élection yi hmm. engagement la décision la aujourd'hui tey fi noo waxee nii j'espère que l'opposition gannaaw ce semblant de dialogue la que j'appelle farce que j'appelle venez on torpille la constitution mais ñoom li ñuy def bu ñu ko xeeb parce que dem nañ ci conseil constitutionnel dem kalaame ji li président bi def ak si dialogue bi li fa jot a tukkee parce que dialoguistes yi sax ñu ngi wax ne trouvé nañ benn consensus bu nga xamante ne nii date bi mën nañ ko yóbbu ba le 2 euh, juin proposition boobu la ñu jox le président. waaw léegi léegi ñoom joxe nañu seen date le 2 juin. Hmm. loolu xam na mu tudd. Hmm. xool peuple la mu di leen saaga ay ndey. le président Macky Sall mënul wax Sénégalais yi ne leen conseil constitutionnel li mu décidé gannaaw bi ma defee décret d' abrogation du premier décret euh, bi doon con convier ou ou conforter ou inviter mm. le corps électoral convoqué du moins ànd naa ci li conseil constitutionnel wax donc dafa doon appliquer il devait juste nous donner une date il a pas fait qu'est-ce qu'il a fait mm. woote dialogue boo xam mi mais président Macky moo la koo xam ni kenn xamul fan la jëm mais ñi ñu ñi ma woo ñoo demul wuy ji ji wuy ji ko. parce que woo na seize candidats yi nga xamante ne ni ñoom ñu ne duñu dem ci ci ci ci dialogue bi donc bu ñu demul finalement na ñan lañ fa gis. ba non non le président Macky n'a plus le droit d'appeler qui que ce soit président la bu jeexal buy dem on est mois de mars il doit partir en avril woote pour lan yow pare nga danga war a dem fin match match bi mu ngay jeex nga ne non damay woote pour ñu reprendre match bi. damay woote pour que ñu xool match bi est-ce que dañ ko war a jouer ou pas. damay woote. Hmm. kaay leen nu waxtaan ñu xool daal match bi nu ñu ko war a tënkee te yow yaa ngi en plein match yaa ngi football. Hmm. nga tourné ne arbitre non taxawal taxawal dóor bal ci touche bi ne ko non taxawal arbitre taxaw nga ne ko non il faut nga woo délégué bi délégué match bi woo dirigeant yi. Hmm. c'est grave ce qui se passe. et l'opposition na na warul sax toog di xam nga bi ñu déposé conseil constitutionnel d'accord. d'accord ils ont déposé un recours parlant de carence du préalable par rapport à la décision qui a été prise par le conseil constitutionnel mm. dëgg bi benn la il faut que opposition sénégalaise seize candidats ou dix-sept candidats yi toog def déclaration wax peuple Sénégal lii bu leen ko nangu du dëgg du yoon parce que bu ñu demee léegi conférence de presse non ne léegi le président dit le 2 juin Sénégal yëpp daan ne bon ok conseil constitutionnel un précédent dangereux li mu décidé woon amatul valeur ay nit ñoo dajaloo jam ñaajo ay nit ñoo dajaloo jam ñaajo wax sénégalais yépp ne leen conseil li mu wax baaxul léegi ñun tànn nañ beneen date supposons sénégalais yi ne ok léegi beneen date ñoom ñu ne non processus électoral bi dañu kaa reprendre ñu ne non non léegi nañ ko reprendre parce que il faut que Karim bokk il faut que Sonko bokk qu'est-ce que ça veut dire di mais comment on peut non joueur bi amul licence tey kon match bi nañ ko rejouer amul fenn amul licence il Karim hélas je suis triste pour lui parce que Karim Wade mérite de bokk ci ñi jiite Sénégal wala bokk ci ñi kaa organ ñi bokk ci élection yi. Mm-hmm. loolu ay dëgg. Mm-hmm. yaayam française la c'est normal mu am nationalité. Mm-hmm. def na procédure bi pour génn ci et cetera malheureusement moment ba lool di agsi échéance ba dafa weesu pour que mu bokk ñoom ñu ne non Karim dafa war a bokk on a écouté l'audio de sanu yaay bi euh, Woré Sarr. mu wax mu leer nañu ne non bu ñu repoussé ça permettra à Karim a bokk mais ça veut dire ak respect bi ñu am ci parti démocratique sénégalais moi je me dis que le président Ablaye Wade il est à quatre-vingt-dix-huit ans yàlla yàlla yàggal ko fi. amiin amiin mais jàpp naa ni Ablaye Wade bii doon politique su su toogoon fu ñuy waxtaanee lii am na ñu bëri ñu naan moom moo nekk ci suuf. gëmuma ni moo nekk ci suuf à quatre-vingt-dix-huit ans. Mm. yaakaaruma Ablaye Wade di tabax lu ni mel. parce li mu gëmoon ci démocratie. Mm. ah bu ko defee ma xam ne war na Sénégal. Mm-hmm. mais parti démocratique sénégalais bu ñu amoon beneen candidat à temps échu. Mm. amaana du ñu agsi fii. ñoom ils soo sont confortés à dire Karim mooy suñu candidat oui Karim mérite d'être leur candidat et je sais dama bokk ci ñi gëm ne Karim Wade bu bokkoon tey nekk sax président Sénégal gëm naa ni il serait dix milliards de fois meilleur que le président actuel qu'on a ah lu ma gëm la oui mais dëgg mm. moo la la koy mu bokk ci mm, mm. ba war a mën a def loolu wees na Karim Wade et ses partenaires du Golfe oui ça nu aurait fait du bien lu ma gëm la mais lakaa kaa mu bokk nekkatu ci moom kay buñ ko tey jii buñ ko ci boole woon itam. Mm-hmm. même bu ma xëyoon dem di liggéey ak moom wala dem di di fayeeku ci moom wala nekk ak moom di ko jàppale ci loolu. Mm-hmm. parce que mu ngi doxal dëkk bi. Mm-hmm. dama naan falu na waaye na mu faloo teguwul ci yoon. parce dëgg la yàlla bëgg.